allo bima serane video bi dama met lol parce que dama comprendre waa lutax mbaj ko parce que Sénégal fi dal da ngay meur parce que homme de tenue buñ xasse ba sol tenue lol nga leni di mais sama gis-gis nat waji lum ko worona wax ret mom war won mbaj parce que mom day woné un bon exemple pour man xawma eh, lu ko waa wax nat mais à quelque soit alpha ñom li di daj eh, armée moy gëna met li len waa wax mënon nako muñ ba tek ko ci yoon quoi lol la gisee di ko ñaawlu di ko ñaawlu bu fi ñaawlu yem loolu tamit même bu amee parce que ñun fi la ñuy toog yéen dañuy dem fu ne yéen loqatu li ñëw duñu wan mais loolu tamit bu amee war na ko mën defee neneen nu dut noonu. amul droit dóor ko moom bigam la ko war na dóoree parce que boo nekkee homme de tenue yow waroo froissé waroo de waroo waroo incorrect ku def lu dul yoon ci attestation nga yor booy kiy dawal si kaw till bi bu defee lu dul yoon jëlal permis attesté ko mais dóor gi du yoon. jox respect mooy nga maj nit ki te fayuwoo parce que bu sol woonte ni bu ko mbéjee bu doon man moom bu sol woonte ni bu ko mbéjee waaj nañ ko dégg feneen jakarta bi même bu tooñee sax suñu tooñ bi policier bee tooñ moo dóore te dóor moom mooy dernier moment comme moom def nañ ko mise en pied 10 jours waaw xëy na yoon dina def ci moom li mu wax li li mu wax quoi mooy problème mais borom jakarta bu fekkee tamit tooñ na ñu teg ko ci daan rek mu jeex loolu laa gisee mais eh, loolu day tax ñu ñu yeewu parce que man tey jii su bëggee dinaa xam ne ne kay daan nañ ko 10 jours parce que 10 jours yooyu moom amaana moom day mën na circulation mën na nekk mais bu nekkoon tey ki nga xam ne ni moom par journée am la am imagine la journée téeméer journée téeméer 10 jours ñaata la nga yor fi njaboot mooy loolu mais heureusement ba nga xam ne ni moom nekkul si sa si moom nekkul kuy fay par jour par weer lay fayal.